mbetteel ak yaakaar gu tas la jàngalekatu Yavuz Selim yi am jëmale ko ci kuréel gi yoroon ci mujjantal doxalinu daara ji te ñu dippee leen Yavuz Selim SA jàngalekat yi di ŋaañu yorinu dossier bii di Yavuz Selim tàmbale ko ci PCA bi fa nekkoon di ma jàmbal Diagne ak i ñoñam ci ñàkk taxawu gi ñu leen wan. waaye nag comme lu ne dafa am kër gu ne dafa am lu muy doxee ñun kër gi nga xamante ni structure bi ñu nekk kii fi nga xamante ni moo fi nekkoon ñuy benn association bu ñu doon wax Beskent. ñoom la fi Yawur Selim teewaloon woon Yawur Selim ndaw yi mu fi tegoon mu ñuy ay directeur d'étude ak ay directeur administratif contrat yi ñooñu lañ ko signé lool ñuy def di signé par contrat par d ba ñëw ci yi ñi fi toog ñëpp tey ay CDI lañ am contrat à durée indéterminée loolu moo ñu liyee woon ak ñoom dem nañ nag ba jëmmi jamono bi loolu amee am na beneen structure bu judd woon ñu ko wax Yawur Selim SA mu ñëw amoon nañ ay péripéties

dañoo jël euh, tout le bâtiment le patrimoine ñom donc pour jéem ko verser ci Yahou Selim SA mais dañoo faté won personnel bi cela veut dire ni ñom musu ñoo considérer donc légui bi lolu amé ñun ñi continuer du liguey à un certain moment ñu ñëw bugg ñu signé wat ay contrat ci biir contrat ça on n'a pas on n'est pas d'accord donc on n'a pas signé contrat yi nga xamante ni ñoom ñooñu loolu la ñu doon proposé daal di andiwaat yeneen contrat yi bees bugg ko ñu signé waat ko ci contrat yi fi njëkkoon am loolu c'est du jamais vu donc ñu leen wax s'il y a continuité il y a des avenants yu ngeen du teg ñu xool ko tripartite ñu signé ko donc loolu mosul a am mais n'empêche que ñoom ñi ngi continuer duñu fay de façon tacite ñu signé ak contrat donc il y a un contrat qui nous a liés à nous. de façon non c'est-à-dire que nous nekkoon continuer mais vous savez que contrat c'est quand je produis du euh, travail et que nga me donc ça c'est un contrat donc ça a duré depuis le mois de décembre jusqu'au mois de septembre donc maintenant si su est arrêté nous ñu notifier s'il y a des droits aussi nous respectons. mais dégguñu leen mosuñu leen a gis mosuñu ñoo fekk fii parce que ñun ci buntu école bi d'ailleurs on nous a demandé de ne plus entrer dans l'enceinte de l'école bu ñu ci biir école bi c'est pourquoi ñuy toog ci bunt bi on n'a plus l'accès ñoom est-ce que jéem ngeen leen contacter non c'est-à-dire ñun du ñoom ñoo leen di contacter ñun fii la ñu am suñu ñëwee on est là devant ñoom suñu ñëwee ni bu ñu duggati jox ko ay instructives ay directive ki fi nekk nii suñu ñëwee enseignants yi bu ñu dugg kooku xam na ni ñoo ngi fi suñu bëggoon a jot wala mu bëgg a wax ak ñun dinañu fekk fii ñoom dañuy dem di créer ji leneen dañoo sepp ci suñu biir ñoo nga xamante ni ñoom ñoom nangul nañ leen jël leen yóbbu mais ñooñu ñett ak ñeent lañu fii li fi nekk bari na enseignants yëpp ñi ngi fii donc ñoom dañoo sepp ñun ñoon dem créer beneen mbir dal dikoy koy def fa ñom ñoo xam ni ñu ko doxale mais ñun liñu ñor moy ñun ak ñom amul lenn luñu ñu respecté ci li nga xamanteni mo moo leen lié won ak ñom malgré que ñun ñi ngi doon def liggéey bi ni mu waré depuis décembre ñu ko continuer won di def ni ko daan defee avant auparavant non xam nga dañuy wax ni gën mus muus ñëpp amut gën a muus ñëpp amut te dañoo yaakaar ñi créé yagu Selim SA nga xam ni barke Demba Ndiaye lañ ñëw ci école bi fekk suñu fi ñun ñi fi def ay fukki at ak juróom wala lu ko ëpp ñoom ñu ñëw fi ci diggante ñaari at ak ñetti at ni ñoom ñoo ñu gën a mun mënta am loolu mënta am suñu ñëwee li ñu war a def mooy taxaw oo toog ak ñun autour de la table ñu xool naka lañuy ñuy mbir yi ku nekk jox sa point de vue nga respecté ko waaye su fekkee da ngay seppiw nële def li nga bëgg a def. di yaakaar ni yaa gën a muus nit ñi su boobaa da ngay nax sa bopp parce que yoon a ngi fi yoon nag mooy tranché lépp li nga xamante ni ñun war la leen ak ñoom def nañ ko ñoom nag li ñu war leen ak ñun ñoom la ñu deful te bu soobee yàlla incha allah dinañ ko yóbbu fa mbaxane doone benn su soobee yàlla justice dina tranché